doon jàkkaar lool juróom-ñetti bal ci ñett moom la ko Sénégal gagné kon nag Sénégal ma ngay wane boppam ca tournoi Kosofa mu soxal bit sa kër bii mooy seen ñaareelu match nekk seen ñaareelu ndam kon nañu leen ñaanal laata ñu fay jógee ñu jël raaya ba ngir mën a dem ca Coupe d'Afrique bi nga xam ne moo soxal bit sa kër ci weeru octobre bii ñu dëgmal ñu jugee ci équipe national but sa kër bi dem ca équipe national bu Côte d'Ivoire ñoom nag gone gii di football ca Chelsea tudd Wesley Fofana ñoo ngi koy bàyyi xel ba léegi ndax gone gi doomu codiwar la ak France waa codiwar li ñu jàpp moo di gone gi mën nañu koo naxtaan mu dem jàppale leen ci coupe du monde bi waaye bu dee gone gi moom li mu gëm te yaakaar ko moo di équipe national bu France bu ñuy dem ca mondial ba dinañu ko woo ngir mu jàppale leen waaye waa Côte d'Ivoire liñ bëgg moo di waxtaan ak moom ak ñi ko jege ngir mu dem ci réewu jàppale d'Ivoire lay Wesley Fofana loole l'équipe moo ko xamle ñu jugee ci équipe nationale bu Côte ak Wesley mën a dem ca Liga Santander ba ñoom nag tey ji officialisé nañu classico bi njëkk ci saison 2023 2022 war a dox ci diggante Real de Madrid ak Barcelone classico bi classico boobee mi ngi war a am dimanche 16 octobre bu 14h15 jotee ci la ñoom ñaar di jàkkaarloo ca Santiago Bernabéu loolee officiel na muy diggante Barcelone ak Real de Madrid ma ngay amee ca Santiago Bernabéu dimanche 16 octobre bu 14h15 jotee ñaari waxtu bu tegelee fukki minutes ak juróom ci la coup d'envoi boobee di door muy diggante Real de Madrid ak Barcelone loolee officiel na ñu jugee ci classico bi waaye waa Real de ñu leen bàyyeegum bu ñu sukkandikoo ci marka nee na Bellingham nag mooy bëgg-bëggub Real de Madrid bu njëkk bu ñu yeggee ci juin 2023 mercato bi ubbi la ñu bëgg moo di dem ca dortu mun jël gone gi indi ko foofee ci Real de Madrid mu jàppale leen Real nag atum 2019 ba léegi ñoo ngi topp gone gi ngir jënd ko waaye waxtaan nag dooroon na ci atum 2022 xamal gone gi ne ko ñoom waa Real de Madrid ñoo xamaloon gone gi ne ko ñoo ngi lay bàyyi xel te bëgg nañu nga football fii ci sunub club muy waa Real de Madrid te Real sax xamaloon na gone gi ne ko sa contrat bi nga yor ci Borussia Dortmund bu ko yokk ndax ñun dañu laa bëgg xibaar boobu Marca yéenekaay moo ko xam xamle. ñu jugee ci waa Real de Madrid ak Bellingham dem ca équipe nationale bu Italie ñoom nag ba ñuy dem ca Hongrie ngir jàkkaarloo ak moom tey jii seen attaquant bi di Ciro Immobile mi nga xam ne dafa blessé woon woo nañu ko ba namm ko yóbbaale waaye ba mu yéegee ci avion bi laata ñuy départ ci la waa sécurité immobilier du ngeen ko mën a yóbbu ndax dafa ànd ak blessure te club bi mu nekk muy ñun waa Lazio du ñu ko bàyyi mu dem dañ koy defal ay examen maanaam dañuy xool tànk bi xool gaañu gaañu bi ba xam nu ñuy doxalee ak moom kon du ngeen ko mën a yóbbaale ca Hongrie loole moo tax kat équipe nationale bu itali ba ñuy dem ca Hongrie yóbbaalewuñu wu ñu seen attaquant bi di Ciro Immobile moom nag dafa ànd ak blessure keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Angleterre sax Ciro Immobile bokkul woon ca match boobee